rek Lamine Sène ñu ñëw ci li nga xam ne moo di B52 mu jiitu la si géewu làmb bëri ay combat combat bi nekk sa premier combat loolu du diis si yow. non mënul diis si ma. Hmm. mbër muy mbapat loolu mënul diis si loolu mënul diis si daa mel ni si mbapat mi nga ko téye di won ne da ngay mbapat daal. damay mbapat damay xeex. yow gis gis nga dóor benn bis. déggoo yéen ñaar kese bokkul ak loo xam ne ay 64 litres 64 litres ñooy daje. ma ne gis nga liñ fi fekk. Hmm. pare nañ pour xeex pare nañ pour bëre lu ma woo ma wuy ko ci. Hmm. bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko. ana ma fi yàlla am soo damaa nekk nii. sa kàddu gu mujj looy wax say supporter ak heure bi yi pare nañ. ma ne la heure bi échange bi laa la pare nañ bu yàgg xam nga lan moo def dem jëli ndam li indi ko Ngexo di ñaanal Gambien yàlla may ko ndam ah? te da koy am sax incha allahu rabbi. Ah, maa